acca dañuy ñëwaat rek mm-hmm. comme ni ma ko waxee li duuf ci nag bi xejul ci cin bi mais dañuy ñëw foo xamante ne aussi wax nga ko balaa ñu koy gën a fàtte aussi euh, digganteeg sa mbayang ne nga sa xarit la dina war nañoo mun a xam lan moo indi xarit bi fan la jóge ak fan la jëm mais tey ji aussi ndaxte man doon na loo xamante ne jaaxal woon na ma to boo ko waxoon woon aussi dina ma jaaxal ndaxte ay yoonu yoon loo xamante ne gis naa la ngay wooy ak mbayang fi ko njëkkee gis Euh, ci nawet bi drapeau de la paix bi su ma juumul xaw ma dix millions yi damaa jékki-jékki gis fépp ñëpp toog ba nga bi ngay ñëw sax maa ngi lay jël di lay kaañoo foofu après nga dem aussi toog dem dal toog jëloo mi ko ko mais daloon nga gisaat naa la foo xamante ne da ngaa dem aussi di woy ren gis naa la suñu lamb joof yoor mbayang jox na la micro ngay woy foofu loo mun a wax ci mbayang mbayang moo man daf ma neex neex mbayax mm. daf ma neex man te buy woy bëgguma masaa awul ko de toog di koy déglu lay bëgg su dee yàlla dëgg rek la bëgg mm-hmm. mooy làmb bi ma lay wax eh, ndangaan soo ko mm-hmm. ba ma ko fa gisee laa ko ne dag ma neex mm. xëy na mu fàttaliku wala mu ñàkk fàttaliku mm-hmm. boobu ñu ngi daloon kenn naa naa jëy lam boobu laa ko njëkk a wax ne jànk danga maa neex kon ñuy dem di dem di dem ba yi ànd mbayang bu hmm. hmm. hmm. ma amulee programme légui ni mo am lamb ma ko woyé mainan may ñu wa sama fan club ba ñuy tëgg soir lamb boobu. mom la defoon invité d'honneur mu waj nak bi ñi dem ba ay 4h ñu ngi dégganté 5h ñu ngi dégganté mu waajoon ba paré xam nga nganté dafa yomb mais wul yónnee si na ay nitam mbayang mako bëggal sama bop du dara nak man dama ko bëggal sama bop ah loolu man jaaxal na ma de ndax man xam naa ne mbaaxaayu mbay ak moom xam na ne bu ñu fi toogee di koy wax duñ fi jógee mais euh, tey jii comme ni ma la wax rek euh, comme tey ku wax mbayang mun a wax ne ay ñëpp ci baaxoo Xadi Juuf la moo ko yar tey jii mais tey jii man dama yaakaar ne artistes yi boo demee ba jël sa yoonu bopp amatoo droit dem ci keneen affaire yu mel noonu tey jii. ah man ba làmb Diofior boobu ngay wax boobu dafa bëri woon ay làmb mu woo ma ne ma jànk ndax semaine bi sa tiir woo ma ne ko déedéet làmb bi ma amoon dafa fomm mu ne ma kon demal ma ngoye poofin ma war a dem ànd ak samay élément awukat ak keneen maa ngi ak juma waroon ànd biñ demee ba génn bay jublu njoos moon ci la ki jiitu foofu noonu ci làmb ba jour boobu la mbayang door a xam ne lamb ba beneen semaine la mu ne ma kon demal Diofior nga wàcc boo demee nga awul Kumba Jaga premier jour ba Kumba Jaga laa fa awul mhm. borsat Kumba Jaga dem Jiloor mhm. bi mu demee Jiloor léegi mbay ak ñëw Diofior mhm. ci laa awul Diofior terrain gaal gi woo na ma ma dem awul yaante la boobu mu ngi ci combat Reug bi stade bi mu paree la ñu fa fekk si yéegali làmb ji moo yaandeer kon mbayam jotuma moom dara dama ko bëgg ci sama xol tey tey laa la wax di tey bu ma déggoon mooy woy fenn fekk man dewuma ma dama koy woo dem. bàyyi li ko <laughs> parce que dundul man lu mun a tax ma am ci moom yenn kii mhm. parce que chaque jour jàmm ak salaam la may woon suma xelal tam loo xamante ne newul lu may avancé loo mhm. newul buñ toogee daf may xelal. Mhm. newul su ma ko woowee téléphone. te kon kooku noonu nag ki lay xelal lu baax munoo ko ñàkk a bëgg. te ki lay ki lay xelal lu baax chaque jour dafa bëgg nga baax te nit ku baax nit ku baax rek lay doon man maa ko bëggal sama bopp nag kenn bëgg loowu ma ko de man maa ko gis bëggal ko sama bopp. Euh, loolu déggin am na solo comme ni nga ko waxee nit euh, bu la lalee teraanga bu la wanee teraanga wala ngor aussi da nga ko war a delloo njukkal ci loolu tey jii to naam li nga def aussi jafe na ci nit seet sa moromu jigéen boo ne yow da maa neex ba bëggal ko sa bopp loolu fi lañ koy fekk te fi lañ koy bàyyi tey jii mais comme wax nga ci mbayang loo xamante ne balaa ngay gën a bëgg mbayang tey jii nga bañ koo awul muy woy nga féetee ko ginnaaw di déglu tey jii naanam aussi li muy woy aussi am na woy yoo xamante ne peut-être da lay marqué ci mbayam li tax nga gën koo bëgg wala li tax nga gën ko ko jàppee soit jëmm bi moo tax mu neex la wala parfois woy yi lan nga ci mun a wax tuuti. jëmm ba ak woy yëpp. mbayang buy woy ba yëkkati ne andooro muy et ma dolloo du may bëgg mu bay woy boobu est-ce que ma dolloo mbine njaay njaay remayata njaay fa sayu ma daanoon deb ibe mbayang bu koy woy man duma bëgg mu noppi yàpp xaw dafa neex te dëkkaa man ñool déggoo li ma la man lu neex laa bëgg man mm-hmm. man dama bëgg lu neex billahi wala te bu ma gisee nit kuy def lu neex dama koy bëgg mhm. même pas mbayang kese mhm. man tey yow li ngay liggéey ni parce que yow fu laa fayda nga ci am dama la cee naw liggéey bu doomi aadama di liggéey rek mu ànd ak fu laa fayda rek man naw naa ko ci bëgg naa ko ci encore mhm. te nit ki li ngay liggéey am ci fu fayda ku ci nawul dafa soxor te mbayang am na ci fu la am na ci fayda voilà. Awa Ndiaye tey jii naam aussi mun nga am mbër bañ koo wax. mën nga am mbër comme wax ko tay ji wala mën nga dégg ay wéyu mbër yo xamantene aussi ma sha allah neex na la lan nga ci mëna wax. wa bari na fim mu nekk nii aw njaay am na mbër amul mbër loolu yeb bu ma ko waxee xam nga rek <laughs> mais nak amna ko xamantene muy sama xol. sama mbër dama ko bëggal sama bop nan euh, du pa comme ça dama ko bëgg ndax limuy boré bore mais jikko moma neex. Mamady Ndiaye. lan nga lan moo waral nga choisir. parce que dafa am jom. Mamady Ndiaye ni mu doon bëral yëpp bay nañ mais terewul mu ngi wone bëgg-bëggam ci làmb ji ba bés ni ki tey defaluma waxaluma mais man dama ko nawee ndax lan jom gi mu am jom. ak fula gi mu am ak njàmbaarte gi mu njàmbaarte ci ba làmb ji ba léegi bu newoon keneen ba nii mais ba légui dafa bëgg lamb ji ci xolam mu am ak mu ñak la yemale té musté def benn bruit nak <laughs> boko ko dama koy gëm ne ndaxte koo euh Seyna bu <laughs> am journée Ndianda wa ko sargal sargal Mamad Ndiaye mu ñëw bëgg ci lamb bi ba dem final bu may waw da ko bëgg motax moy lima lay wax rek Mamadi Ndiaye dafa bëgg lamb da ko bëgg ci xolam ogé wuñ ko woon ñëpp dañoo yaakaar ne sangu bo set sañse bo set mooy Mamadi Ndiaye wa mbeur la mbër la surprise la leen def loolu dafa neex. am na solo dafa neex. ban woy nga mun a woy nag ci mbër yi naam même bu dul Mamady Ndiaye sax woy boo xamante ne da laa neex ci mbër yi ndax am na wala amul. waaw loolu bëri na. limal ma benn wala ñaar. non na <laughs> bëri na. doo ma doo ma limal na. ah waaw doo na rek. ah kon kon kon garaawul mais tey euh, tey nag awa. aar bi doon loo xamante ne metti na torop torop torop torop lu nga koy bëgg di dégg ne ne naam taxul nga xaddi découragé gëm li nga bëgg ne man yàlla moo ma def loolu yàlla moo ma choisir na woykat laay doon ba tey fii nga koy dund aussi mais tey jii ci milieu bi lan nga dund loo xamante ne tey jii metti na la boo xamante ne boo xam ne foo ko mun a mun a jooytu tey jii. waaw comme li ma la bëgg wax si ne mbuur woy ji may woy dara méttiwu ma ci parce que man maa ko bëgg di koy def mais ñiy tëgg làmb yi nañ jàppale woykat yi ak tëggkat yi ñiy tëgg nañ jàppale kat yi ak tëggkat yi. ndaxte woykat yi ñooy jiitu ñooy mujje. woykat yi tëggkat yi ñooy jiitu ñooy mujje mbër mën na bëre benn fan am loo xamante ne nit woy na ko ay saison amu ko. li ñuy tëggal mbër yi duñ ko tëggal duñ ko fay woykat yi duñ ko fay tëggkat yi te pourtant nag bu tëgg amut woy amut làmb du neex kon léegi nit ñi nañ jàppale woykat yi jàppale tëggkat yi te yàlla tax nangoo leen a fay te boo doon tëgg làmb tëgg rajo kese di nga gis ay mbër parce que ñooñu dañuy wuti mais doo gis seetaankat gis nga kat tëgg làmb tëgg woykat tëgg tëggkat yow kooku la muy am yow doo ko gis parce que leen différence bi moo bëri plaisir bañ cay am yow doo ko am parce que buñ demee dinañ déglu woy dinañ deglu tëgg dinañ bor dinañ seetaan bore yow tey ku ñëwoon ci yow lan lay xool bore kese lay seetaan ay son sa lay el di déglu mais du gis woykat du gis tëggkat kon nit ñi nañ jàppale tëggkat yi xam ak woy it te yàlla tax tëggkat yi ak woykat yi nañ leen jàppale te yàlla tax am na ci solo trop. ah loolu aussi am na ci solo aussi mais da ngeen yéen ci seen biir aussi war ngeen jàppale seen boppu tey jii ndaxte naam aussi tey jii woy doon na loo xamante ne métti na tey jii li leen di fay bu dul woon may lay doo leen am dara loolu xam nañ ko tey jii mais tey jii est-ce que jotul yéen ngeen ut ay ménager yo xamante ne ñoo leen di waxaaleel jàppal leen seen programme yéen ngeen di dem ngeen mun a gis seen bopp bu baax a baax ndax da ngay woy jox li ngay jox da koy jox ñi nga àndal pare jeex na. parce que xam nga lan la. tey woykat yëpp ak tëggkat yëpp dañoo war a doon benn di def benn di wax benn ñun buñ defoon noonu ñun ñëpp suudewu doon benn kon luñ bëgg ci àddina dañ ko am parce que mbooloo ñoo mënu kenn de tëggkat yëpp buñ boolee woon tëgg woykat yëpp bolo doon benn bu boobaa niñ sañ a wax ne ku ñëw ci ñun fay ñu temps dinañ wéy ku ñëw ci ñun fay ñu temps dinañ tëgg mais tant que loolu amut kon liñ bëgg mën nañ koo am nañ koo ñàkk am yaa ci mën a am nag sa fulaa fayda bopp ne làmb ji ma fayul temps duma ko woy mais fulaa fayda bopp boo ci dugalul loolu kon di liggéey ba bëggee dee te doo ci gis li ngay liggéey te koy wët nag dangaa bëgg am de ah man de bu ma fa ku ma fayul doo ma la liggéeyal bu ma fayee nag naa la liggéeyal am na solo mais awa Ndiaye ngi woy awa Ndiaye ngi woy mhm. te gisuma sama bopp mhm. loolu ñaan ma ko yàlla boo ma fayee dinaa la liggéeyal mooy boo ma nanguwut a fay nga dem wuti koo xamante ne dina la nangoo liggéeyal ci loolu mhm. ah, Euh, loolu am na solo comme ni nga ko waxee tey jii xam naa li ngeen di joytu waa mbaa li ngay jootu di koy jootu sa yeneen moromu woykat yi tey jii xay xëy na am ator yi ak euh, promoteur yi buñ ko déggee dinañ ci gën a def jéego bu baax a baax ndaxte ñoo en tout cas daal ñoo ngi lay koy ñaan képp ku doon promoteur jàppale leen woykat yi dañoo sonn da ngay engagé au programme ci ay cent mille cent cinquante mille tey jii boo boo boo ko joxee say àndalo mu jeex bu dul mali mali mayle yi duñu am dara te loolu taxoon nit bàyyi këram di daan doole di dang-dangi ci oto yi lu ne te loolu doon loo xamante ne comme ni nga ko waxee woy dafa metti mais tey jii aussi ñu ñëw rek awa lan mooy sa passion ëllëg ak sa vision lan la ci woy yi euh, man bëgg naa fu doomi aadama teg tànkam ci woy ma teg kaf sama tànk bëgg naa tam lu doomi aadama lu ñoom yaa xadi ñi ko jiite ñoom yaa may dem bëgg naa luñ am ci woy man ma am ko te maa koy ñaan suñu borom parce que man maa ko bëggal sam bopp kenn bëggaloowu ma ko man maa ko bëgg dama ciy ñaan yàlla tam lu ma ci am rek mu doon loo xamante ne lu ma jigla ak lu ma lew bëgguma cee am tam lu ma lewut bëgg naa lu ma ci am mu doon loo xamante ne dama lew te bëgg naa fu doomi aadama yegg ci àddina ma yegg fa maa ngi ñaan suñu borom ko yàlla def. amiin euh, tey jii mais man fii laay njëkkee de ñaaxaar bi nga xamante ne ñaaxaar euh, yaatu na de kon waa ñaaxaar aussi seen doom a ngi nii da ngeen ko war a jàppale nit da ngay jàppale sa doom jàppale sa mbokk jàppale sa jarbaat ak say jigéen ndaxte woy nga fi làmb boo xamante ne. naam sax amaanaam aman na ñoo yoo xam ne làmb bi ak liñ ciy teg est ce que jot awa war na ko war a mun a woy yàlla def ci nag nga woy ko làmb bi neex bo ñëpp ñu ngi koy waxtaanee tey jii kon zone de Niakhar ñu ngi leen di ñaan ngeen jàppale sa doom seen rakk seen jigéen ki nga xamante ne aussi yàgg na bëgg làmb di koy dund ba fii nii nii tool ba tey rêve am avenir u làmb mu réussir ci woyi la bëgg kon jàppale leen ko ci bu baax a baax a baax mais doon aussi Awa Ndiaye boo doon ñëw ci say fans club yi nga xamante ne aussi dañ lay faral di baaxoo di lay safoo di namoo ñoonu tey jii la loo mun a wax ci say fans club yi. non ñooñu borom baax lañ. sama fans club yi sama supporters ñooñu borom baax lañ. man fiñ ma tek def amana sax man yeguma fa billahi wallahi wal azim man fi ma nit tek man Awa amana amaan yeguma fa man dañ ma bëgg ba desaluñ ma dara samay fans club buñ gën buñ buñ mënon man may gën ci aduna man may ki gën ci aduna parce dañ ma bëggal seen bop rek te yalla tax na xalé yu goor yi dëkk ñaaxar mère yi dëkk ñaaxar paay yi dëkk ñaaxar sama nijaay sama yaay sama ñepp wax dëggal neex yàlla man liñ ma won kenn man mënuma leen fay parce que ñoom ñëpp a bëgg mhm. te buñ ko sañoon tey fuñ dégg nit dégg ma fa mhm. ñoom dégg buñ ko sañoon waa Ñaaxar tey buñ ko sañoon fuñ dégg doomi adama rek nañ fa dégg Awa Ndiaye mhm. kon man aw ma seen fay ñoom Ñaaxar ñëpp aw ma seen fay wax dëgg neex yàlla boo doon lancé appel aussi ñan ngay lancé appel tey jii ndaxte comme ni ma waxee rek aar bi métti na parfois nga war a bugg a déplacé déplacé yi xaw a tënk lu mel ni ay oto wala ay moto par exemple tey jii loolu yëpp day dal artiste tey jii boo doon lancer appel pour ñu jàppale la aussi tey jii lan ngay lancer appel ndaxte ñun ñii nii ñu moom yéen euh, li ñuy gis ak li ñuy jànkonte ci yoon yi surtout woykat yi métti na loo xamante ne métti moo xamante ne kenn mënu koo làmb day jeex sax nga bugg a ñibbi dawal si say njaboot naam doo mun a ñibbi si ndax gudaay bi ñàkk mooy loo xamante ne di nga ko déplacer pour ñibbi si da ngay toog mujj a fanaanat waa loolu day am chaque jour da ngay dem làmb war a ñibbi boo léewul oto doo ñibbi man amaguma oto parce que mën naa ne amaguma moyen bu ma jëndee oto nit booy wax da ngay da wax dëgg rek te yàlla tax mhm. mais ku ma ci jàppale ma jël man mhm. ku ma ci jàppale ma jël parce que li may luyee ay oto mhm. hmm, may dem làmb bu fekkee làmb benn fan la du ma fa muy luyee oto am nag chauffeur bu baax boo xamante ne wax dëgg neex yàlla kooku fu ma ko yëkkatee mu jóg. Hmm. muy Pape Faye dëkk Ñaaxar. foo ko Paa Amat day tëdd ci lalam ma woo ko téléphone ne ko maa ngi ci làmb béréb nangam wala ci xew nangam billahi mu bàyyi fa jabaram ñëw jël si ma. Paa Amat fanaan noonu laa ko làmb du benn yoon du ñaari yoon dëkk ba dëkk. fekk ma dem programme war a yëgale ji làmb jóge foofu noonu moo ma yóbbu. Hmm. day mujj fanaan. ba yi libéré ma mhm. Pape Faye door a taal otoom ñu ñibbisi mosuma gis changé kanam ci Pape Faye mhm. mosuma gis mu woon ma kanam goo xamante ne kanam gu ñànk la. kanam goo xamante damay woo comme ça nii bañ duggee ci weeru koor gi. Mhm. day toog ba ay ñaari fan ñetti fan mu woo ma njaay ci loone ne. borom baax rek ay def loolu. xam mën naa ne ñëpp buñ meloon ni Pape Faye ci oto. man du ma mës a am problème mais loolu manqué ñaan daal man bëgg naa ko ci sama xol yàlla na ma ko yàlla may. Euh, ah supporters yi dégg ngeen ko yenn supporters yi ak fans club yi naam mboolo mooy xàccandoo dóorandoo dumandoo waaw to nit boo ko bëggee bëgg ko te yàlla tax da nga ko mu da nga a mën a di jàppale de A à Z waaw ndaxte Awa Ndiaye kese moom munul jënd oto naam. sinon dalay yàggatoo comme rêve am la aussi fans club yaa ngi fi supporters yi xëy na boo leen ci jàppee góor jàpp góor jàpp jigéen jàpp dina mu sotti kom loolu mooy rêve am tey jii ak lan mooy sa dernier cadeau. sama dernier cadeau mu ko waroon njëkkee sax sama yaay dama sant sama yaay. Mhm. koy sant di koy gërëm. Mhm. sama yaay dafa bëggu njaboot. Mhm. sama yaay dafa ragal sax ndax njaboot. sama yaay xamul sax li mu fa bugg njabootam rawatina sama grand bi ma la doon wax noonu hmm. ak sama mag yi sama rakk yi hmm. boo ñu gisee suñu biir kër da ngay foog ne ñun du ñu ay mag rek rakk hmm. dañ loolu ngay foog parce que loolu sama yaay moo ñu ko yaree sama yaay dafa ragal bu gisee ñaari nit tey ñu tongoo balaa muy am jàmm sama yaay lekk sax du ko def sama yaay doomam bu tukkee taxamul ci lan la ne sama yaay du nangoo lekk dafa ragal dafa bëgg njaboot ba ragal may ziyaare na sama papa mhm. Sombel Diouf mhm. kooku moom sama bayi bopp la mhm. papa Sombel wax dëgg ne yàlla bëggal ma boppam yërëm ma yiir ma mën naa ne sama papa dundatul mais jooyu ma pappa ndax pappa Sombel sam papa Souley Ndiaye moom sama papa ñoo bokk ndey ak xam ah, ñoo bokk benn baay bi leen jur papa yi bu Ndiaye mën naa ne sam papa teel na gaañu xaw ma ko mais jooyu ma bàyyi ndax ñooñu papa Sombel yàlla rek laa ko bàyyi sama rakk nag dafa xamante ne dafa yaradi ko mhm. <laughs> Ablaye Diop la dëkk jego nde ɓes xaaj tan bàyyi fallu Diop ten bu mogi maay Ablaye Diop ba ma amina naar Diop ma amina naar ko mo ma wax ci mom duma ma sama rak la. Kan nga wéré kan nga créé woy bi. woy bi dañ ko tuddé woon ay guitar daga weer ba passé avant ñuy dugg ci koor bi dafa bëgg sama njabot bëgg sama dom ci gën moy ki nekk né bëgg ma ba jël sama dom taf ko ci seen rawati na nak mom ñaar soxna la mhm. yow ñaar dom ju gor kessa la amako ay tuut tànk lañ comme sama Mohamed bi kon xam nga ne kooku ñaareel bi sax taawloo ko mu ne moom Amina mooy doomam bu jigéen xamul ndax yàlla dina ko moy doom bu jigéen kon kooku man yàlla laa koy bàyyi ke xool sa doom beneen mooy sama taaw bu jigéen ndax xaw ma nag dinaa am doom bu jigéen yàlla rek laa koy bàyyi zoro guitare laa koya woyal jegoon di bes xaaj can bàyyi fa lu jóg ten bëgg mu gi ma Ablaye Diop a génn ci yaan ma Amina naar joo ma moo fa yàlla e abla job cian ma amina tapi nata fande o kheda roga wasine. e abla job cian ma amina tapi nata fande o kheda roga wasine. amin Mau coba ci bëgge wax dama sori mau bapak mam abla mën tapi ne besok mau ba samay waa groupe lagi ñuy jënd yére léegi sa bëriwul ndax moom 2016 lagi gëjee jëndal sama bapak yére Dah nyom. Ablaye damay toog ba mu def sa mbuus ñëw tegal ma Ablaye yére yi ma dagg yi ma joxoon daggaguma ci benn yoon mënuma njaay xoo da nga war di sol chaque semaine ñaari yére wala ñetti yére mu ne ko léegi nan laa koy eldee mënuma boo duggee làmb boo solee nga dem sumee ko solaat na ko yow nag dof nga mbitam kuy xew <laughs> kooku xoolal boo ko newoon léegi Awa Ndiaye moo baax mm-hmm. Awa Ndiaye moo rafet mm-hmm. Awa Ndiaye euh, moo mun woy mm-hmm. léegi ni la de ni la lay def nii mais tey boo bëggoon a wax ci man baat boo xamante ne du noonu lee nga ñàkk ko billaahi walaay wala asim sama supporter yëpp ak sama fans club yëpp maa leen di ziyaare billaahi bàyyiwuma kenn bu ma damay juum bu ma <laughs> loolu am na solo kon Ablaye Diop euh, yàlla xeeb dooli sutura euh, bi mag ba barke euh, yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def ak suñu ñëw suñu toogaay bi tey wala suñu ñëwaay bi tey aussi tey lan nga ci gën a jàngat aussi walu lu parce que daf may jour ba jëké dem rajo mak mariam Jon fatik jour bob la ñëk wax ci radio mariam moom moo fa yóbbu mu wat ma bama tonto mbay e kalam invité waté kon tay yow mom borom bax nga te yag nga ma top ci li suma la topone bi passé nañ ko bu yag ma lay suba tey suba décourager wo ben yoon kon mën naa ne yow borom baax nga mhm. te tey bëgg nga fu doomi aadama yegg wala fu ñu ko dégg rek ñu dégg ma fa mhm. parce que borom xol bu rafet nga mhm. aw ma sa fay yal na nga toog bañ lay si ci télé yeeg lépp foo bëgg foo foo xalaat sa njortu rek ci lu rafet rek yal la fa yàlla yeggale ci barke Mohamed Euh, jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax a baax di lay ñaanal lépp li nga bëgg ak li ngay jublu aussi yal na ko yàlla di koy sottil njaboot yi mag euh, ba barke a ah, toogal la ràccal la pilian nag yobu la maka ba nga ñib si toogal la ne yaa aca ràccal ci pilian bi yal na ko yàlla def mbokk yi jërë ngeen jëf ñoo ngi leen di joxaat rendez ci beneen dig daje jaa ngeen jëf